sëñ bi Mor Deme ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Euh, di la dalal euh, tey jii ci réew Rewmi FM yow nga bokk ci regroupement euh, des anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal tey jii ñu doon dégg jamono ji ci média yi ne militaire invalides yi ñoo ngi ñaxtu ñoo ngi ñaxtu ñu buggoon a xam nan la fa demee. pour commencer dama naan ma maa ngi leen fay nuyoo di leen jaajëfal si dalal bi ngeen ma dalal mm-hmm. ma lay xamal ni la xeexu militaire invalide yi mm-hmm. du tey rek la commencé parce que mais yàgg na xeex bi yàgg na te day loo xam ne aussi waroon na mën a ñàkk mm-hmm. ñi xeex ñëpp ba benn la ñu bien vrai que association yi même bu dul benn mais ay invalide fa ne que ça soit ANAMIS que ça soit Ramzems. Mhm. parce que ñun ñi ñëpp ANAMIS moom lañu jóge woon après ñu ñëw daal di créer beneen association muy les grands mutilés les grands blessés de guerre moo nekk Ramzems boobu quoi. Mhm. waaw mais ñun ak ñoom nee naa la ñun ñoo bokk li ñuy xeex li ñuy xeex yëpp xëj na Ramzems les grands mutilés. Mhm. am na lu ñu am mais am na lu des. kon bu ma la déggee ngay wax ñaari association yu bokkul ñoo am jamono ji ci invalides yi. waaw effectivement. yéen ngeen di RAMSEMS. waaw muy wundu lan. RAMSEMS regroupement des anciens militaires de guerre. Uh-huh. lu wutale ñaari association yi. ñaari association yi li leen. utale mooy dañoo bokkul ay pourcentage ay degré maanaam ñële ay petit blessé la looloo tax mais ñu ne les petits blessés et les grands blessés quoi. Mm-hmm. waaw léegi Ramdiès pour nga bokk fa foog di nga am au delà de quatre vingt cinq pour cent quatre vingt cinq pour cent foofu la foofu la grand invalide commencé quoi. 85 pour cent maanaam ci gaañu gaañu gi nga xam ne. jot nga ko am euh, sur le terrain. nga ne woon xeex bi benn la ñu bëggoon a xam tey lan ngeen di jàmbat. li ñuy jàmbat moom man xaw ma kañ lakk suñu autorité yi di saafara. parce que bu mm. buñ ko doon saafara moom dama naan saafara nañ ci bu yàgg parce que man mii di wax ak yow amul ku ma toogalul si autorité yi muy gouverneur du palais muy préfet muy sous préfet. mais ñoom ñëpp koo si toogal dan la naan dinañ rendre compte mais suñu autorité yi mm. waaw ban nii may waxee ak yow deux mois yi na ma sax mat na xam nga invalides yi mm. dañoo sonn sonn goo xam ni maanaam yéen journalistes yi bu ngeen doon déplacé wu bay dem di fekk on invalide mais si këram ak nam fay sax mais da ngeen di yéemu mm-hmm. xam nga nit ah yow mais nga ñàkk si ñaari tànk ba sa ñaari loxo baa nga gumba te yooyu yëpp am na si mais mais li ma lay wax lépp am si mm-hmm. am na ñoo sax bànneexu sëy yi mais dañ ciy dégg parce que c'est xam nan laa ko mën a expliquer seen nit ki doxatul. Mhm. dootu ñu fonctionner. te yooyu yëpp ci euh, ay guerre la ñu jëlee. Euh, effectivement effectivement waaw. parmi ñun am nañu ñoo xam ne mënatuñu am doom. Mhm. waaw xam naa ni xam ngeen fan laay xam nga loolu mais dafa metti si koo xam ni dañ ko waroon a jël teg sa kaw jox ko 4 4 wala 8 8. jox ko caabi kër ah boole si ekkati salaire bu baax comme un million de francs ñun loolu moom la ñu doon kas mais tam na ni. Mhm. waaw parce que ay temps rek ñu ngi fi doon mel laam-laamee ay wax naan mais dañoo bëgg soit euh, député en retraite wala président bu def deux mandats successifs xam nañ ko waxee pour ñu lay fay ay dix millions ah mais de salaire pour quelle raison sans penser aux invalides yi nga xam ne dañu dem. verser seen sang sur le champ de bataille. kon daal bu ma la déggee ngay wax sëñ bi dem meilleures conditions de vie ngeen soxla jamono ji. merci beaucoup invalide waratuloo souffrir invalide moomul coono ñun lañ doon sonn dañ kaa sonn si champ de bataille ba pare ñoom kay li leen dese mooy ak nu sa kaw dinu jaajëfal waratuñu manqué dara waaw xam nga boo defee comparaison peut-être comparaison lu nekk raison comme tutuwaab mais ni mu ko waxee mais dama naan raison aussi hmm. parce que ñun li ñu dal nii bu doon armée française la kenn dootu ko wax doo dégg sax meñ ñuy wàcc parce que ñoom dañoo jël seen invalide mettre leen dans de très bonnes conditions tey boo gisoon benn invalide français tubaab mais ngay waxtaan ak sax ay jooy mais mais di leen par rapport ak ñun nit ñu tey ici au Sénégal hmm. waaw te ngóoru Macky Sall gi rek la la marché yi takarnaas Macky Sall mii rek moo geesuwul invalide yi. kon da nga bëggoon wax ne euh, njiitu réew yi fi jot a jaar yépp euh, xaw nañoo améliorer seen i de vie. mais li amuloon ay temps Ablaye Wade même le problème. de décarné lu am lu amuloon am lu amuloon lan moo soppeeku ci diggante bi laa bëgg a xam. li si soppeeku mooy avec état Macky bi bi ñëwee hmm. dañ ñu bëgg installer ay. carte puce carte puce yoo xam ni kenn laaju ñu si mais suñu avis yi dañoo waroon a consulter mais ñu xool ba xam am na ay ndëgg sërëx ba xam am na ay loraange am déet hmm. waaye ñun carte puce boo xam ne yow xamoo la sa biir kenn leerul la sa dara ah tey boo duggee dem ba sa biir muy sa loraange mais foo moo tax ma ni ñoom dañ noo bëgg a jekkal yi dañ noo bëgg a enterrer vivant man noonu laa ko gisee. parce que carte puce bi bi euh, lu muy njëriñ euh, ci wàllum gu yaram seen carnet de santé moom la ñu euh, soppeer nii mu doon carte de puce yi dañoo bëggoon a gën a comprendre. waaw kay ñoom dañ ni suñu carnet pharmaceutique yooyu ñu yore. Mm-hmm. carnet de santé yi. Mm-hmm. moom la éliminer parce que ñoom bon ñu ngi naan peut-être comme mais jamono mais day dox. Mm-hmm. mais nag ñun day loo xam ne nag ñun xamuñu ko mën nañ laa jox carte bu dee sa carnet di xam li la médecin bi di bindal. Mhm. mais sa carte boo demee si machine lañ koy enregistré ah yow mën nañ la bindal ta doo xam luñ la bindal si say ordonnance mhm. ñoom dañ ko def uniquement pour wàññi ordonnance yi militaire invalide yi jël dañ ko def uniquement pour yokk ñu souffrance waaw te ñoom ñooñu mais suñu chef yooyu il y a des officiers yoo xam ne dans l' armée ñu ngeek ay carnet te ñoom ordonnance yi ñuy jël ñoom ñoom ñun sax ñun dañ kaa jëlul ñoom ñun ëpp ay bon d' ordonnance foofu bu ñu dikkee ñoom li seen problème naan euh, militaire invalide yi li ñuy jël si ay garab mais dafa bari yow borom ñaari tànk yu daggawul la mais gumba googu mais bu sañoon kenn daggamee ñaari tànkam man bu ma sañoon li ma daal du daal bon nañ ñu bàyyi ak suñuy garab mais suñuy garab bu doon un million de francs de médicament sax ñun ñun ñoo ko moom parce que ñun ñoo ko yelloo parce que la santé n'a pas de prix waaw mais suñu autorités yi ñoo ñuy soxore ñoo ñuy xeex xam naa audience bi ñu ñaan ak président ñun bu toogoon ak président ba expliqué moom dina xam lépp waaye ñoom ñoo ñuy contrecarré di teg ay barrières pour président bañ ñu recevoir parce que xam na ni bés bu ñu président recevoir lu lëndëmoon lu nekk dina leer waaw ñun moom. Euh, balaa ñoo dugg ci euh, lii di euh, de bon médico yi monsieur dem wax mhm. ci carnet yooyu nga wax justement tey ji yow nee nga dañoo bëgg wàññi li nga xam ne moom mooy seen droit wala seen li ngeen war a am ci wàllum garab am na nag xibaar yi nga xam ne nee nañu benn enquête bi nga xam ne dooroon nañ ko depuis deux mille quinze jëm ci garab yi moo wone benn mafia tax bañu ñu changé mbir yi su ko defee ñu gën a mën a am contrôle kan mooy jël garab yi ak kan moo ko yelloo. bon loolu ñoom carnet yi man bu suma carnet jeexee fan lay dem intendance ñoom ñoo kay me me defar gis nga mamafia booba bu ñuy wax. Mm. man dama naan amusi bu sa amee ñoom ña nga xam ne ñoonu gën a xam carnet yi ñooy defar carnet yi ñoom ñoo ko si def li ngay wax ni jot naa information parce que nee sax. am na benn médecin bu nekk Gambie. Mhm. boo xam ne sax si mafia bi la mais ay garab. Mhm. man ban invalide mooy jóge fii Sénégal di dem ba Gambie naan day prescrire ordonnance am na loo xam ne boo ko déggee xam ne lii yenewul maanaa ñoom ñoo bëgg a duunal seen kees maanaam après mm, si information bi ñu ngi naan après am nañu ay bénéfice ay tant de millions léegi bénéfice yooyu anañu ñun mais lu ñuy laaj un million mais de francs pourtant bénéfice boobu ñoom ñu ne am nañ ko man nañ say jox les grands invalides chaque invalide un un million de francs par mois te seen bénéfice boobu du yëngatu sax d'après ñoom mel ñu ko waxee bon kay loolu ñu yàqanal nañ ko delloo si si invalides yi. Mm-hmm. léegi ñoom ñoom seen biir ñoom officiers yi seen biir ñoom ñoo yor ay ordonnance ay huit cent mille ak ay yu kay xamul ñoom ñooñu bëgguñu kaa jiñ ñun duñ ko nangu de ñooñ ku ñu ko dabaj ñu rokkat la xamul nu ko olof me me doxee ñun kenn kenn duñ ko jiñ. ñub lang am si carnet yi suñu officiers yi ñu ñoom ñoo ko def xam nga li gën a bon lekkoon nii non ñun lekkuñu mais ñu bëgg nu niinal kooku duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba moo tax sax conférence de presse mm-hmm. lañ doon waaj pour def ko léegi ko comme dañoo mayoon ñu xaar leen pour deux mois loolu moo waaw loolu moo taxoon ñu bàyyi suñu ko conférence mais de presse waaye daño woon dañ expiré ñaari weer yooy la jeex na le trois bi passé jeex na bu yàgg moo tax ñun waaw bii passé mm-hmm. moo tax ñu ñu ngi wàcc beneen wàcc boo xam ni dina wóote ak wàcc yi fa am yëpp xam nga ñun suñ wàcc yëpp bunta pale moom lañ ko daan def taf fuñ ko defee mais day réussir ñun ñun les grands invalides ñun mais duñu dem si ay mbedd ak ay kii day ñun toujours suñu point à atteindre mooy palais. mais euh, loolu mbaa du menace est-ce que gisu leen ne beneen yoon jël ko comme recours ngeen waxtaan moo gën a yemb. ñoom déggoo wax naa la sa ay biir wax ñaati yoon ñu ngi toog ak ñoom nee naa la muy préfet muy gouverneur muy sous préfet ah muy waa ministère des forces armées ah mboolem autorité boo xam ni war nga si moo dox tànki jàmm ñoom ñëpp dañu toog ak ñoom am na si autorité yu ma yoo xam ne sax ah dañ lay jox nga seen numéro mais après sax boo leen di woo jot wala da lay ñàkkal fayda man Mor Dème man damay ko xam ni benn la nga may ñàkkal fayda man booba ma naree ñàkkal fayda ma teg la sa ànd moo tax ñoom ay temps am na si ñoo xam ni je peux citer leur nom mais euh, waaw non non mais dama la expliquer rek ah. am na ñoo xam ni je peux je peux vous donner leur man ak ñoom xañ doon jokkoo mai dañ leen di woo mais duñ la jël ba ñu lay may ñàkkal fayda man loolu ku ma ko def nag may gis te ay autorité lañ ci bi ay autorité lañu ay officier lañu ci corps bi waaw si corps bi si armée kon bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni ah, dafa am ñi nga xam ne bëgguñu njiitu réew mi jot ci xibaar yi. merci. waaye tey bu ngeen demee ba nekk palais nekk buntu palais def fa manifestation xanaa loolu nag njiitu réew mi du ñàkk jot na ci. yëg na ko sax njiitu réew mi yëg na suñuy doléance même dossier revendicatif bii ñu ñu mujjee dugal biñ koy suivre nee nañu yegg na présidence boobu comme dafa nekk si tournée économique ah su mais su paree dina koy sayto parce que les point revendicatifs da dafa bëri dix neuf points yi mais dafa bëri bon dix neuf points dafa bëri te li gën a bëri mu ngi koy def jël say oto di wër mais Sénégal loolu moo gën a bëri moo gën a métti que jàmbat dix neuf points. kon daal yéen ah. dix neuf points ngeen am ci seen i euh, plateforme revendicative. dix neuf mais mais points yooyu sax. point principal bi bi nga xam ne moo ñu gën a ñor. Mm. moom lañ def en tête mooy invalide ñu leen dafay un million de francs boobu c'est le seul point revendicatif sax man yi yi si des bu leen neexee buñ ko réglé mais un million yi ñuy kaas ñun dañ koy yellool parce que ñun yow tey tey man Mor Dème kan moo ma mën a embaucher kan moo ma mën a réinsérer koo xam ne mais sa ñaari loxo mais dafa dagg wala sa ñaari tànk dagg wala nga ña nga ñàkki bët doon ak gumba yow ku la mën a réinsérer mais uyu ma si uyu ma si question boobu ñun kan moo nu mën a jëlaat fu ñu mën a xare matta fenn mënatuñoo xaar matta fenn ñun ñun ñun ñoo raw tey fànn dañoo garé pour l' instant moo tax nag ñuy laaj un million yoo xam ni tout tout y lépp si biir. un million bi mu doon seen pension euh, maanaam mensuelle wala nan lay demee. maanaam. effectivement pension mensuelle chaque fin du mois da ngay dem à la banque taxaw kees ñu compter la un million yow kon jox la bu leen neexee nag seen mais carnet de piste yi di andi coow en ce moment là nañ ko téye parce que nit ki boo ko fayee mais lu ko jar mais yaakaar ni la mu yor lu lu mu sentir sax mais dina ko mën a jëndi waaw buy buy buy dem parce que li ñuy fayeeku chaque déplacement ay taxi la ñuy jël ñun Angolais bi mhm. ñun mënuñoo génn suñu déplacement moo yombul moo tax sax point de revendication yooyu boole woon nañ si ay oto pour Angolais bu nekk am oto mais un million yi laaj bu ñu la bi dina gën a yombalal sax sa sa papaasu taxi yi ñuy jël amoon invalide bu dul génn métro doo jël taxi parce que invalide yi lu ñu yor ay bekk ay pousse-pousse ah ay tànk il se déplace mais par taxi ah yow di premier au trente yow sa salaire da nga koy passé taxi ba mu jeex tag ah boole ak yor may njaboot ak yeneen yeneen moo tax invalide yi kenn fayu leen invalides yi bu ñu bëggee jàmm ni ñooy nañ leen fay un million de francs boo xam ni vraiment di si mën a gis seen bopp cooc hmm. coow li jeex Sénégal jëm si kanam. Serigne Mor Deme ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax sëñ bi Mor Deme lay jaajëfal bu a baax. merci Elisa man it mag leen di jaajëfal di di kontaan si interview